Uras Info Ribari Gao Tewor Uras Info L'info à temps réel. Uras Info Djangat du te Notre force, le traitement de l'info. Sayda Fatimatu Zahra di dom bu njëkk ci Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass ba tax na Baye radiallahu anhu bégee ko comme ni ñëpp di bégee rek sa premier doom mais ji doom nag judd na waajuram taxawu ko toppatoo ko jàngal ko waaye itam wan ko yoon wa yar ko mu mokkal alquran ca teel bi mu mokkalee alquran jàng comme ni ko ñëpp di defee li ñu tuddee majlis mbooleem téri xonq yi mu dem ba géeju ca waaye nekk it koo xam yal na itam def jaloore ci loolu ñuy tuddee tafsirul quran bokkoon ci soxna yi nga xam ne daan nañu teewee lu nu mel mu nekkoon itam borom alquranul karim miinoon ko lool daan ko wàcce mais nekkoon borom ñaan teel a jot nag jël li nga xam ne mooy matukaayam ci wàllu liggéey surtout nag liggéeyal ki nga xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala bi nga xamee ne nag sëy jot na ki nga xam ne mooy Maolana Cheikh al Islam Haji Ibrahim teel a nag jëfandikoo la nga xam ne mooy aaya tayyibina wa tayyibuna li tayyibaati tax mu jënk ko ki nga xam ne mooy Mawlaaya Seydi Ali Cissé mi nga xam ne mooy premier xalifaam loolu ndono lay tekki ndax kooku mooy ki nga xam ne doon na Seydi Ali moom mag ma ca yonent ba sallallahu alayhi wa sallam waaye Seydi Fatimatu Zahra mi itam doon boobale Fatima di Fatimaam yonent ba sallallahu alayhi mbokk mu baax moomu nag ay mbokkam gunge nañu ko tey ku ci mel ni Mawlaaya Xalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass ku ci mel ni Cheikh Mouhamadine الأمين إبراهيم الشيخ محمد الأمين بابا الأمين الشيخ محمد العاقب الشيخ محمد الخريشي ناس الشيخ محمد منصور ابن مولاي شيخ الإسلام حاج إبراهيم ak Cheikh Mohamed la Khalifa waaye mbokk yi xam ngeen ni Medina Baye Alimi la tax na ki nga xam ne moom moo di Seydi Ababacar Mbacke mu kabaru penc ma moom it teew na ci bile dëkk yi nga xam ne métti na lool Seydi Mohamed al Khalifa Niass nga xam ne ci kër gi la bokk di lew na ñeseen moom itam teewal fi ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ahmed Tidiane bu law gunge nañ seen mbokk mu baax mi nga xam ni kenn dootu ko fàtte waaye mbokk la moo xam ne teel na defar defaree ndax it euh, investir na bu baax a baax ci ay doomam kooku nga xam ne moo ñu meññal imaam Hassan Cissé meññal ñu imaam euh, Cheikh Tidiane Ali Cissé kadalika imaam Cheikh Mahdi Mahi Ali Cissé ñooñu nga xam ne ay aima lañ Seyda làq na juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñett gannaaw bi mu génnee àdduna talaata ji yem ak fan ci weeru juin ñu denc ko ca pegg waajuram ba Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahima Niass ci benn fan ci weeru juillet 2020 yàlla yàlla dëkkale ko ak Mawlana Cheikh al Islam Alhaaji Ibrahim waaye dëkkale ko ak ba sallallahu alayhi wa sallam dëkkale ko ak Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane. waaye gërëm ñëpp ñu jagleel gërëm euh, Faydatu Tidiane de presse bu fi nekk ak Jafala FM ak mboole seen taxaw nañ taxawaay boo a fay wax ne tey Medina def na sacrifice bu rëy def na sacrifice bu rëy pour presse ne ñun ñëpp ñoo ñëw ci monsieur ak RS Info ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp xam naa ne ñi fi liggéey ñëpp ci presse mooy gërëm nañ presse bi pour ñu yóbbu ñëpp ndax buñ juub ñu ngi gërëm di sant wasalaamaaleykum wa Uras Info, Ribari Gao Tewor. Uras Info l'info à temps réel Uras Info jàngat yu te notre force le traitement de l'info